Abdoul Malick Bousso bu Forum Civil euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu lay euh, dalal di wax ci li nga xam ne mooy samedi gi ñu wees sañu doon màggal li di bés euh, africaine gi ñu jagleel prévention waaye xeex corruption ndax jàpp ngeen ne Sénégal tey ji am na avancé ci mbirum xeex corruption. jërëjëf bi nga rappelé ne samedi bi moom la ñu jagle woon ci Afrique benn bés boo xamante ne ñii di xeex ger yëpp. dañuy taxaw seetlu boole seen xel ak seen xalaat mhm. xool naka lañuy ñuy jëmbalee parce que guerre dafa du lu doy waar lu yàq di nax sa réew euh, dama bëgg rekk rappeler mhm. président de la république bi fi toog tey biñ ko falee euh, mhm. discours bu mu njëkk a def jagleel ko Sénégal mu def ko le 3 avril 2012 dafa ne woon moom day taxaw tem ci li nga xamante ne yorinu réew mi dañuy jagle koomam ak doxilinam mhm. de koy teg ci anam yu rafet anam yu jekk anam yu mucc mooy transparence ak responsabilité dans la gestion des affaires publiques mhm. loolu waral président de la république taxaw ci tëgg nag mhm. muy saytu mbiru ger président de la république transposer li ñuy wax code de transparence de la gestion des finances publiques ci droit positif Sénégal muy jëmmalaat kër yi mu nga xamante ne ci temps Abdou Diouf lañ ko tegaloon tegoon muy saytu yenn xeetu ñaawteef yi nga xamante ne moom lañ doon yore alalu réew mi ak mbiru réew mi mhm. mu defaraat Cour de comptes loolu waraloon réew mi am jéego yu rafet ci benn indice international bu bu bu transparence yi di gëstu mu tudd IPC transparence yi ngeen xam ne forum civil mooy bànqaasam ci senegal loolu ñu rafetlu woon ko ba nga xamante ne ñu def ci ay jéego wan nañu xool ne ñetti at yi senegal dafa taxaw avancé tul ci indice boobu ci même nombre de points yi mu amoon yooyu yooyu la am ba léegi loolu nag lu ko waral ak lu ko sabab mm-hmm. mooy que dañu xool ne Sénégal dafa taxaw ci lu mu doon xuus président de la république dafa mel ne dafa tënk li doon moteur bi doon avancé mbir mi nga xamante ne mooy xeex ger ku des comptes defatul rapport am wala rapport ya siiwaluñ ko inspection générale d'État defatul rapport wala rapport ba siiwaluñ ko OFNAC defatul rapport wala rapport wa siiwaluñ ko bu ko defee euh, ARMP ci boppam mooy saytu commande publique yi rapport yi muy produire xëy na Euh, euh, fi mu war a jaar yorin wi mu épinglé rapport yi nga xamante ñaaw te yi mu génne li ko war a noddanti jëmuñu ca wala xuusuñu ca loolu moo waral Sénégal li mu doon avancé dafa taxaw taxaw boobu nag lu ko sabab yëpp mooy manque de volonté politique wala euh, yemamaayu volonté politique bi ci anam yi ma wax léegi. Mhm. loolu nag. Mhm. loolu nag bu ñu bëggee Sénégal avancé bu ñu bëggee xeex xeex ger bi jolli ñu am ci euh, taxawaay bu rafet il faut gouvernement bi ak président la république bind réew mi ci euh, jëmmal convention internationale yi ñu signé mm-hmm. mooy convention bi nga xamante ne euh, bu unité africaine jagleel prévention ak xeex ger charte bi nga xamante ne union africaine def ko tëba tabax jëmale ko ci jëmmal démocratie taxawal élection yu mucc ayib ak euh, yorinu réew yu sell mucc ayib mm-hmm. ci euh, ndawulu buur yi ndawulu Sénégal ndawulu état ñu dooleen na fonction publique dañoo war a taxawal code de conduite boo xamante ne lu ko lal mooy ay jikko yu rafet mm-hmm. mooy code général d'éthique et déontologie de la fonction ñu jëmmalaat kër yi xëy na tabaxaat ko ci cour boo xamante ne li ñu doon soo lu sooke woon ci kër yi ba ñuy ne xëy na am na loo xamante ne baaxul ci ni muy doxalee. Hmm. ñu mun ko noddanti créer benn cour boo xamante ne ñaaw tefu économique yépp ak finance jalgati affaire réew mi moom da ciy taxaw pour saafara ko. ñu financé. Mhm. parti politique yi ci anam yu rafet ak campagne électorale yi moo gën borom barke yi di dugal seen loxo. ci financer activité politique yi euh, fekk en retour guerre rek lay jur guerre rek lay lal yooyu jéego buñ ci demee ak euh, loi d'accès à l'information yéen yéen journalistes yi ngeen a mun a saytu xibaar fu mu nee mun ko jottali askan wi ci anam yu rafet yooyu buñ ko defee transparence dina am bonne gouvernance dina am ci réew mi xanaa da ngeen jàpp ne organes yooyu ñu fi teg dañoo defu seen liggéey bu baax ba mu jaral leen ngeen namaat leneen. non dañoo ko gis ne. Euh, même organes yi bu ñu defee seen liggéey. Mhm. liggéey bi dafa am fu mu yem. Ah, xëy na mun nañu noddanti yenn yi. Mhm. mun nañu defaraat taxawaay surtout mun nañu soññ gouvernement bi président la république mu dellu ci li sababoon ñu tabax organ ya mhm. mottali seen liggéey libérer justice rendre ko indépendant yemale justicier yépp amul justice su parallèle parce que perception bi Sénégal yem mooy que boo nekkee ci nguur gi dara du la dal boo ko soree lu nekk mun na la dal na nga am donc ñu ku ne même boo luubalee walla juboo da ngay wute réew wute wute nguur ga ànd ak moom laxasoog moom yooyu dafa laaj ñu taxaw seetlu noddanti li ñu war a noddanti ndax réew mi yorinam ak li ngànk yorin yo ñu mun ko defar defar boo xamante ne suba citoyen yi dina seen bopp te li nga xamante ne dañ ko dajale war a tabax réew mi war a tabaxal waa réew mi nekkin bu rafet rek nekkin bu jekk ñu mun ko def ci anam yu rafet. monsieur Bousso tey jii journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption ndax Afrique euh, jël na solo wala sax xam na solo sa célébration boobu. xam nga loolu euh, suñu responsabilité la ñun société civile ak yéen médias yi dañ cee war a def liggéey bu rafet ak liggéey boo xamante ne xam ger lu muy yàq ci réew. guerre lu muy yàq ci Afrique bu ñu la nee li fi génn ci xeetu xaalis waroon nekk ci Sénégal wala nekk ci Afrique tabax Afrique muy koom boo xamante daf ñuy rëcc di di di di di dem yoonam loolu tabax na ñaari Afrique ñetti Afrique te loolu mooy li ñu wax flux financier illicite yi génn Afrique moo ëpp mukk fuuf investissement direct étranger yi di dugg ci réew mi réewu Afrique yi moo ëpp fuuf aide publique au développement bi di dugg ci Afrique loolu dafa ne dafa mel na hémorragie financière moo mooy def Afrique mhm. dañu dagg sititu Afrique substance bi mooy deretu Afrique day walaa ngaan di génn di dem di di dem bitim réew te loolu gouvernants yi dañ ci am responsabilité bu wërsëg ah. mais société civile dafa ci am responsabilité pour yee nit ñi taxaw ak ay plaidoyer yoo xamante ne lii il faut que ñu arrêter hémorragie loolu dafa laaj ci cadre légal ak cadre juridique bu bu mucc ay mhm. ñu tabax ko nag yi nga xamante ne yéen ay journaliste yéen ay waxaan ak opinion bi di tabax opinion yi yéen tamit da ngeen ci am. rôle bu rëy bi ngeen war wax ci leneen muy li nga xam ne mooy révélation yi Cissé Lo euh, def yi nga xam ne cité na ci ay autorités yu nekk ci mim réew tey ji position Euh, forum civil accusation yooyu jëm ci foncier bi ak li nga xam ne mooy terre bi. forum civil euh, euh, Cissé Lo def ñu fekk ci li nga xamante ne loolu lañ doon wax te ñu yàgg cee wax. xaw ci wé xaw ci wéet d'ailleurs. Hmm. mooy yàgg nañu ne. yaa ngi yéen a ngi rappelé wu fii benn déclaration bi ñu génnoon du temps Pape Ablaye Seck hmm. naan gouvernement bi den jël na trois cent quatre-vingts milliards jagleel ko mbéy mi te béykat yi suñu ko. Hmm. ñu indi woon fii ay euh, waxtaan lël fi waxtaan ak Kaffrine ak à Kaolack avec les acteurs du monde rural li ñu wax moom la Cissé Lo wax te si waloon nañ ko booba journaliste yi li ñuy wax ne nii Cissé Lo da ko wax la ko njëkk a wax que population loolu la ñuy wax dafa am ndimbal yoo xamante ne Sénégal de koo jable suqali mbéy ma te am ay nit yu koy aaki moo di yegsi yegsi ci béykat yi mm-hmm. muy ay opérateur muy ay grands producteurs ñooy jël xaalis boobu ñu leen mbéy mi te du àgg ci béykat yi terre bi yàgg nañu wax ne convention de financement yi Sénégal di signé pour def ay rattrapage infrastructure mm-hmm. lu ko lal lu ci gën a bëri mooy liy rus ci poosu ñenn nañi mais du luy tabax réew mi loolu yàgg nañ ko wax mm-hmm. euh, forum def cee yàgg taxaw di wax te Cissé Lo dafa firndeel rek parce que moom dafa nekk ci mbirum ña nekk ci au cœur de la gouvernance nekk au parti au pouvoir bu nee nag ñi muy ko séqal jëlandoo réew mi ñu dénk réew mi pour ñu tabax réew mi ñoom seen bopp ñooy def xeetu ñaawteef yooyu loolu dafa siiwal rek loo xamante ne dafa doon rumaamaat. ndax mën nañ ci xaarandi forum civil mu amal ci ay action comme lu ci mel ni saisir euh, ay euh, juridiction euh, jëm li ci mel. ñun dañ nañ dépassé loolu. lu ne dañ koy def enquête def ci ay équipe de recherche wut ay firnde. Mhm. gis nga affaire foncier bi muy wax nii dañoo dem ba Ndengeleer dem ba Jila rencontre population yi ne leen yéen ak baabakar ngoom lan moo leen boole ñu wax ñu liñ ci xam ñoom muy lan. Mhm. mooy collectivité territoriale yi nga xamante ne dañ leen dénk domaine national ñu yore ko war ko. fexe ba ku ci soxla war cee njëriñu suuf si ñëpp a ko bokk ñu jël suuf si jox ko ay ay borom alal ay borom barke pour ñu koy jëfandikoo te loolu joxin boobu ak joxle boobu concerté wuñu ak population yi pour xool ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy dund ci suuf si ñooy dundee suuf sa lan lañ ci nar lan lañ ci bëgg muy benn ñaareel bi suuf si ñu ko jox ci délibération mu dem transformer ko en bail deful ci suuf sa dara au lieu mu liggéey suuf sa mu amalal ko njëriñ amalal njëriñ askan wa amalal njëriñ Sénégal mu ne déedéet suuf sa dem koy def far moomeel administration domaniale gunge ko ci volonté boobu président de la république tollanti ci don ci domaine boobu. Mhm. jël décret jaay ko suuf soo nga xamante ne suufu domaine national privatisation ak patrimonialisation du domaine loolu la ñu def xeetu ñaawteef yooyu nag moo lal gouvernance wu réew mi ci ñu toll mhm. Sénégal du ñu rem rek ci justice dañ koy ŋaññi ba sénégalais yëpp xam loolu parce que plaidoyer la ñu yëkkati xam interpeller ku acteur bu nekk ci sa responsabilité mhm. monsieur procureur de la république war war war na ci jóg mhm. mais ñoom ñoom ñoom ñi nga xamante ñoom ñoom la dénk gox yi ak gox goxaan yi nan la ñu yoree gox yi ak gox goxaan yi dañu war a rendre compte ci seen ci citoyen yi waruñu toog di seetaan suuf sépp nga xamante ne domaine national jàll la ñëpp a ko bokk ku ci soxla ñëw ñu xool li nga ci soxla jox la nga valoriser ci valoriser ko boo ko mënul valoriser mu dellu ci moomeelu set askan wi ñu koy seetaan ñu koy pas fase di ko jox ku la ku ku leen neex. boo amee barke daal wala boo bokkee ci nguur gi ñu jox ci quelques secondes tey ji euh, mbiru environnement euh, muy coow lu lëmbee jamono ji euh, jëm ci gazelle oryx yi dégguñu ci forum civil fan ngeen féete fu ngeen taxawee. forum civil question d'intérêt national bu ne da ko soxal mm-hmm. lu soxal askan wi daal ñun ñu ngi ci dafa nekk nag lu nekk actualité dafa am ay kàngam yu war a toog. saytu ko wax ci am ci lu leer soog a mun a wax forum civil mënaguma wax taxawaayam parce que mu ngi waxtaan ci mbir mi mhm. stabiliser gul benn position mais nag acteur citoyen la acteur de la société civile la mhm. gis nga euh, mala yooyu ñu indi fii dañ leen yóbbu fu tudd Ranéeru foofu naam ci Sénégal la bokk mhm. naam environnement la ko lal mais réserve de la biosphère la c'est-à-dire monde bi ci boppam dafa ne lii dafa amal njëriñu Sénégal dafa am njëriñ askan wi dafa amal njëriñ àdduna si yëpp donc loolu yëpp bokk ko mhm. yow ngay ministre de l'environnement ñu ne la yow yaay sàmm kaaraange loola yow nga jël càmm googu nga ne man sama kiyaaru bopp rek naa ci def ay prélèvement pour sama jouissance personnelle am ci say service yu nekk ci sa peeg gunge la ci loolu ba mu indi lor malaya mhm. loolu xel da ko mënul te nangu citoyen waru ko mun a nangu suñ ko war a mun a xeexe danañ ko xeexe mhm. euh, euh, dafa woon ne rek ndel ne kii ñi ñu dénk lii liñ ko dénk motu ko liñ ko dénk xamu ko liñ ko dénk waratuñ ko ko dénk war mu simmi ndombal tànkam wala président la république si mil ko ndam tànk ndombal tànk boobu mu ngi ko jox il est disqualifié à conduire les politiques environnementales au Sénégal <laughs> ci anam yi Abdoul Malick Bousso bu Forum Civil ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi leen di remercier